jaar naa la ndeysaan arbitre bi ngi waaj a dox ci diggante fu Foudaye ak Sa Cadior numéro 2 ndeysaan Thiatou Foudaye moom nga moo la féete di joor Saaka a numéro 2 moo la féete càmmoñ moo la woon ginnaaw ndeysaan Malick Ngom mooy arbitre laaj na leen naa Malick sifflé na Saaka Diop Thiatou Fouday dóorante xeex dóor mu daanu Thiatou Fouday dóor na ko mu daanu wala déet daanu na daa daje coup bi Saaka Diop daa daje coup bi Saaka Diop daa daje coup bi oh Fils du koy yëkkati dóor na ko mu daanu daay mi lu mu nar caatu fu daay nu mu mal caatu fu daay nu mu nar caatu fu daay lu mu nar caatu fu daay lu mu nar ndeysaan caatu fu daay caatu fu daay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 billaahi barkam xalaatoon nga ko dóor dara bi ma dóor ba pare am fit gëm li ngay te kii xam naa ne maa barke alxuraan ca kaw la soo ay pare ordinateur billaahi la ma ngi door a mi fi ñëpp bàyyi na koy jaaw na ñëw bàyyi naa pour rek moom wala soo rek